dal leen ak jàmm yéen kaay yu bari xëy tey ndaje fippu gañ doon amal ci HLM Grand Yoff ndaje ba mujjuta yegg eh, ci waxtu gañ ko àppaloon ay xeer a ko tas yéen kaay bi di Walf Quotidien dañu xam lekk gatsa gatsa gi dox ci diggante Ousmane Sonko ak Khalifa Sall ay ñoñam seeni ñooñ daanaka réeroo nañu kàddu ga benn loole fës na ci eh, ndaje ma gannaaw bu ay ñooñu Khalifa Sall tàmbalee wax eh, kàddu ak coow la yuuxu ya jib ci noonee la ndaje ma jeexee Walf Quotidien dañu ko yeggee ci xëtam bu njëkk yéen kaay L'As ne jàmm jeex na ci diggante ay farando Ousmane Sonko ak euh, ki nga xamante mooy Khalifa Babacar Sall la koy euh, wone ak la koy firndeel mooy li xewoon ci ndaje fippu kuréel gi boot euh, société civile ak kujjeeg politique bi ndaje gañ doon amal daanaka coow ko tas xew ma jeex gannaaw jàmmarloo ga doxoon ci diggante ñi ànd ak Khalifa ak ñi Sonko ñoo yàq ndaje ma yéen kaabi di las ko yëggee l'info ne mangoog ndaje moom nga xamante ne moo nuyoo si ci ku jég politique bi kàddu ga doonatul benn bokk na ci waa FDD joxoñ baaraamu tuuma ñoo xamante ñoo ngànnaayu ba dëgër yàq ndaje ma ñooñu nag daañ leen yóbbu fu mbaxana doone benn keneen ku àddu ci googu lépp ndaje ndawu taxawu Sénégal bu Khalifa Babacar Sall ña ngay seetal Barthélemy Diaz ne bu ko kenn tuumaal la leen yitteel mooy fexe ba Khalifa doon président ci élection présidentielle ñu jëm ndaw patriote te ànd ak Ousmane Sonko seetal nañu seen bopp ci kàddu yañ leen tuumaal jàpp ne bu Diomaye doon président Mamadou mboj bu F24 eh, jàpp ne réero amul ñàkk waxtaan am faw ñu toog waxtaanee eh, li nga xamante ne mooy réero gi tàmbale fës ci eh, géew politique bi rawatina ku jéeg politique bi te ñoom waa fippu la leen yëkkati mooy fexe ba ñu sàmmonte calendrier électoral bi fexe ba njiitu réew Macky Sall ab ci bopp réew mi ñaari fan ci weeru avril fexe ba amal élection présidentielle yu mucc ayib ànduñu tamit ci projet loi d'amnistie musa Tine àdduna ne njiitu réew mi Macky Sall daanaka nguuram jeex na ba tax na ku jeg politique bi waruñoo noonoo ci jamono ji ndax Khalifa Sall munta doon président bu Sénégal te soxlawul doole waa Pastef tey Ousmane Sonko wala Bassirou Diomaye Faye munta doon président bu Sénégal te soxlawul euh, doole waa taxawu Sénégal yéen kaabi di yor yor gi taxaw ci googu lépp ndaje fippu euh, fippu gan ak fa mu jeexee bokk na ci euh, tasaaro yéen kaabi ne fippu googee sax teg nañu pression njiitu réew mi Macky Sall ndaje gañ doon amal am na ko saboté am ñu joxoñ baaraamu tuuma Barthélémy Diaz Mañune moo sooke ndaje ma yàqu yàqet yéen bi di turbine opposition bi ñu ngi ci tasaaro kaddu ga doonatul benn ci jamono joo xamante ne njiitu réew Macky Sall mu ngi dooleel ay nitam yéen bi di turbine moo ñu ko yëggee le quotidien ne ña ngay nas ay pexe ci APR ngir fexe ba njiitu réew Macky Sall démissionné ca mu gën a gaawee ci boppu réew mi bokk na ci processus électoral bi ñu càmbaraat ko amalaat élection présidentielle doon na soxal ay ñooñu njiitu réew mi Macky Sall yéen bi di ñu enquêtal semaine jëm gi ñu jëm lu ne mun na caa xew ndax euh, la ñu jot ci dialogue national ba jébal nañ ko jiitu réew Macky Sall tey jii la koy jot ci ay loxoom buñ ca noppee nag daañ ko jébal conseil constitutionnel mu joxe ci xalaatam ba tax na lu ne mun naa am ci semaine euh, gi ñu dugg si yéen a bi di 24 heures ne li am ba des mooy euh, ku yaboo sentu leneen ak leneen ci mim réew ndax la ci dialogue baak nañu joxe yëf ya ji lañ ko ko jébal yéen a bi ne mun naa am sax njiitu réew Macky laata le yenn yéen kabi di 24 heures moo ñu ko yëggee yéen kabi di Sud Quotidien xëy dañu dégtal ay kaddu Mimi Touré mi doonoon ganuk euh, Sud Quotidien euh, dellusiwaat na ci ëllëgu mu Sénégal ne mu ngi ci loxo njiitu réew Macky Sall ngelawaay na ba réew mi laata élection yi ñu jëm laata 2 avril na ci amal élection présidentielle ñaawlu na itamit euh, loi d'amnistie ne àndu ci moom Mimi Touré mu ngi ci yéen kabi yéen kabi la le mandat ne anañu bëggoon a faat noppiloo Maimouna Ndour Faye ba faw ñooñee lu tax taxoon lu leen taxoon a jóg euh, ngir ñu bëgg a lem ay fanu Maimouna Ndour Faye doon du jaaxal yéen kabi di le mandat yéen kabi ne Maimouna Ndour Faye fay bu buñ ko agressé ca lalu hôpital la mujjee ca urgence sursoit ne am na tan ci jamono ji waaye nag ba léegi génnagul urgence fa mu dëkk di cité El Hadji Malick Sy ba ne ca Wokam ña dëkkee ca cité ba ñu ngi dund jaaxle ak ñàkkum kaaraange ne lu ko dalee février ba léegi ñu ngi leen fay agressé niwatuñ ci kaaraange ba tax na juróomeelu agression gu doy waar ba Maymuna Ndour Faye moo ko dund ca cité ba euh, chef de quartier ba ak euh, ña fa yeewoo ne euh, jot nañu yokkal leen seen i kaaraange yéen a kaabidi stade ne ñaari football katu Sénégal gii la seen jaloore gën naa yokku ca bitim réew rawatina ca Marseille gañu ne Iliman ak Ismaïla Sarr ña ngi fay wone seen mënin ña ngi fay sigil senegal ci wàllu football dañ ci dikkaat na mu gën a yaatoo tënk la woon ci yéen kaay Sene